président euh, di orienter le peuple vers le civisme le premier constat mooy on manque de civisme il n'y a pas de civisme parce que mënoo par exemple am civisme il y a 15 ans après tu n'as plus de civisme soit tu es un peuple qui a le sens du civisme qui le vit qui l'applique wala voilà, qui ne l'a pas 59 ans après euh, mais xam nga lu baax bu ko nit koy da nga koy encourager mooy il n'est jamais trop tard pour pour bien faire comme ni ko gars yi waxee j'adhère à cela le seul problème mooy effet d'annonce yi nga xamante ni moom la ñu tàmm di dund si euh, monsieur le maire lu muy lu muy wax fàtte na si yokku euh, tolérance zéro en terme d'accident gisoon nañu si waa protection civile ñu génne ay mesures def communication bu rëy ne désormais amatul benn tolérance bu ñuy def si wàllu circulation parce qu'il faut que les gens se conforment la règle. Euh, Tabine Géej <laughs> pour faire du du maire. c'est-à-dire que dañu tàmm nekk Sénégal muy régime mu Wade régime mu Macky dañuy def ay ngan di annonce ñëpp adhéré. mais au bout d'un certain temps dootoo ko dégg day mel ni la question est réglée alors que tu le tous les jours. muy loo xamante ni ñaan nañu xëy na mu mu mu soppeeku. Euh, leneen li nga xamante ne mooy beesul. Euh, président Macky Sall moom moo wax dans son discours il parle de civisme mais am na fu mu waxee pour man lu gën a puissant encore c'est quand il parle de contrat social le contrat social moi je crois que lu foofu la lépp nekk parce que le contrat social euh, ça sous-entend que da nga am ay obligations par rapport ak société bi xam nga Ablaye Daye dëkkoo bi xam nga dans la jungle de la y a que le de la survie hmm. mais dans une société elle est bien organisée da nga am ay droits am ay obligations donc il faut que tu te conformes aux, aux normes si sama xam-xam bu gàtt su ma jéemee am sob-sob na damay interpréter l'orientation nouvelle euh, du président parce que président Macky Sall Sénégal la juddoo fii la jànge fii la yaroo fii la nekkee président donc kenn gënu koo xam ne civisme bi dafa yàgg sooke dafa yàgg am problème mm-hmm. euh, c'est pour rejoindre ta question pour répondre à ta question bu ngi ne pourquoi maintenant Moi, je crois que ça obéit à une stratégie bien faite par rapport à un mandat, à un renouvellement. Parce que boo demee ba wax waxu civisme tu ne parles plus d'institution, tu parles plus de, de de combat politique mais chaque citoyen dans son recoin dans son petit coin day sentir li nga xamante ni moom mooy l'orientation nouvelle bu am parce que tu te conformes aux, aux, aux normes là il n'y a plus de calcul le souci du renouvellement d'un mandat je crois que c'est lié à ça mu am indépendance par rapport ak contexte bi mais maintenant nag je vais taper là où là où ça plus mal parce que si mandat yu njëkk yi tu peux tu veux apaiser les gens tu veux rassurer les gens euh, pour confiance nga xam ne euh, de questions économiques de régler des urgences comme programme yi nga xam ne tëral nañ ko fi pour le bien-être des gens pour que nit ñi gën a mais pas ñëw di corriger le comportement des gens parce que ça va affecter euh, les personnes hmm. quel que soit ce niveau bi nga nekk ak sa fi nga nekk mais li ci wax rek mooy man ñaari souci laa ci am déjà il faut l'encourager je crois que c'est une bonne c'est, il est temps que ñu euh, euh, dund loolu hmm, parce que amul sénégalais bi nga sax dégg euh, on est tous des sénégalais doo du ñàkk ku dégg benn jour quelqu'un ne non Sénégal dañu war a sax am dictature parce que lii chacun a a eu entendre ça de quelqu'un qui dit non je suis frustré mais ki naka la ñu defee dëkk bi dafa amul amul loi parce que lu waay neex def dañu war sax am benn dictature boo xamante ne ah. fëgg gars yi xam nga Sénégal yi non ça veut dire que dictature moom baaxul non c'est une façon de c'est une façon d'exprimer sa colère pour dire que ne hmm. yenn yenn réewande yi ak waaw donc c'est c'est dans l'esprit quoi moo tax ma ne c'est c'est une des rares occasions où tous les Sénégalais euh, consensuellement oui, sont d'accord sur le oui. fait que il est temps qu'on s'attaque à la question du, du civisme mm -hmm. maintenant li ma ragal rek moom mooy mu nekk effet d'annonce ñu dem au bout d'un certain temps mu mu mais je crois que ak l'indépendance bi am tey jii président bi c'est son dernier mandat amatul souci. libéré de plusieurs contraintes il doit de coups yi ñu loo xamante ne c'est vraiment pas mal Djibril Fall <laughs> alors euh, Malal euh, très rapidement su ma déggee ñii ñuy wax ni kilifa yi nañ joxe exemple mais est que du Sénégalais yi seen bopp ñoo war a ànd vraiment def li ñu war a def pour que lépp jaar ni mu waree jaar yoon. yes waaw mais am na solo que mu jóge ci président quand c'est important parce que kii dafa wax. dafa wax waxu volonté générale muy adhésion de tout un chacun par rapport à l'établissement de quelques norme dafa évoquer le contrat social mm-hmm. c'est l'adhésion de tout un chacun par rapport à l'établissement de quelques normes c'est important mm-hmm. mais ñu jiital ci parce que problème bi du li am ñu koy gis mais dafa am lu am te gisuñu ko mooy mbalitu xel yi pour emprunter un ami Malick Sarr nee suñu xel yi dafa am mbalit il faut que ñu bale ko. commencé ko ci ñi nga xamante ne ñooy bëgg réew mi créer boo demee seeni meeting buñ fa jógee nga xeeb leen mbuus xollitu banaana xooxu mango caaf tout dans les meetings en 2012 Y'en a marre sax moo wane exemple boo leen meetingee ba pare. def yëfu japonais. oui def yëfu def yëfu japonais c'est important. loolu nag dafa soxla ñëpp taxaw ci tey booy xool sax nga tàmbale ko Cap Manuel ba yegg Kayar amatuñu ban tefes amuñu amuñu benn domaine te pourtant tefes yi c'est un domaine public. Hmm. mais genn wàll gi yëpp c'est bradé diggante ay sëriñ ak ay doomu sëriñ diggante ay politiciens yu am xaalis ak ay liban ak ay libanais lañ ko jox ñu tabax fa ay restaurant waa Fann mënatuñ dem sangu ji géej parce que tout simplement ay multinationales jël nañ géej gi et cetera encombré ko léegi mënatoo sax sangu tefes sangu sangu sa géeju koñ alors que bu njëkk da ngay wekku da ngay sumeekoo sa buntu kër dox ba tefes feey mais léegi nga dem ay tout le littoral a été bradé matt mi ñu jël ko jaay ko population bi naan waa mais ñii fu ñu jëme matt mi ñu koy jël dëkkuñ si koñ bi mais ñun lu tax matt mi duñ ci am même bu fekkee loolu ñaaw na même même matt mi ñuy dagg waa koñ bi war nañ ko bokkoo defar ci ay mbaaru xar mais nga delluwaat dugg ci biir kër yi bann kër. bu nga parce que c'est important ci li ngay wax ni man lu euh, gën a dramatique pour Guédiawaye parce que ñun ñëpp banlieue lañ dëkk. mooy cimetière yi. mooy oui dem nañ ba amatuñu woon cimetière Pikine la ñuy suulee. ay seen néew instant bii la ñu commencé cimetière bi fees na. te Guédiawaye 57 67 ba léegi mu ngi existé mu ngi door a am ay cimetière instant bii nii te te fonctionné la gul beneen affaire bi ci topp mooy boo duggee ci suñu biir kër yi. Hmm. da yor kër 15 sur 10 di fa yar xar nag béy ginaar. nit ñi dëgg si dëkk ci biir gàlle bi kër gi amaale tailleur am magasin buy jaay dugub ak ceeb d'abord quand on est encombré quand on quand on a l'habitude de l'encombrement on en fait une culture ça devient très très normal alors que je suis d'accord pour que ñu transformer suñuy ville mais il est important qu'on garde également l'identité de nos villes parce qu'on ne doit pas perdre l'identité de nos villes l'identité de nos villes mooy suñu histoire ville pour man loolu c'est c'est dafa am importance boo ñëwee tey ci boo boo ñëwee tey ci alentouru école yi alentouru hôpitaux yi tu retrouves des ateliers de menuiserie tu retrouves des tu retrouves des tailleurs la cantinisation effectivement te loolu effectivement je pense que responsabilité municipalité yi responsabilité maire yi la moo tax ñu war a am taxawaay boo xamante ne les mouvements citoyens qui existent. Mm. même bu fekkee ils opèrent à petite échelle ñoom ñu ngi def liggéey bu am solo c'est-à-dire euh, d'abord de petits groupes de jeunes qui se regroupent qui s'appellent JATAC qui s'appellent MTS qui s'appellent euh, Defar Sama Gox ces initiatives là mm -hmm. qui sont apolitiques ils doivent être conséquemment soutenu dañ leen war a jàppale bu baax a baax a baax parce que ñu ngi def liggéey bu fasantikoo ci gox yi di bale mbali di di defar et cetera et cetera ba pare ñuy bàyyi di politiser yoo xamante ne yenn yi jarul politiser parce que jóge nañ ci ab Prodac ñëw ci UGC euh, unité de gestion des UC unité de coordination et de gestion des ordures ménagères mais mais cette cette agence boobu ça a été politisé c'est-à-dire ñi ñuy dénk yooyu responsabilité est-ce que bëgg nañu dëkk bi set est-ce que da ngay fal nit ki parce dafa am compétence su cet est-ce que damay fal nit ki parce que en fait c'est parce que en fait enveloppe bi ay milliards la je je pourrais le manipuler parce que maa ko teg ci poste boobu parce à chaque fois quand j'ai besoin d'un peu pour battre campagne effectivement ma forcer ko la main beneen affaire bi dafa wax sànq nee na ñu il faut prêcher par l'exemplarité oui. mais loolu dafa am c'est important musuma gis ministre wala député musuma gis ministre wala maire bu ànd ak population yi di bale koñ bi pourquoi pas par dimanche xanaa organiser grand marathon euh, ak ay apparence yu rëy nag marathon bu mag ñu sol ay t-shirt sol ay blouson yu cher topp tefes bi sol ay training dosé non <laughs> ça doit pas se passer comme ça c'est-à-dire ça doit être un ça doit naturel et au quotidien hmm. au quotidien au quotidien c'est très très important ñu def ko un programme de quartier def ko un programme local les populations s'associent parce que cette affaire u ñëpp la parce que booy observer léegi tuberculose bi dafa ñëwaat tuberculose bi dafa ñëwaat il faut aller dans les quartiers populaires tu vas observer ça parce que en fait c'est partout de la poussière mm. garab yi bu ñu leen daggee bi day jóg quand les gens s'installent n'importe comment dafa wax mm. civisme fiscal mais mm. civisme également administratif da ngay dem service des sa oto baaxul ñu jox la visite technique bu baax il faut des sanctions mm. il faut que les gens soient beaucoup plus rigoureux parce que c'est ça l'État Charles Faye alors